dal leen jàmm ci xibaar mu di ki nga xamante ni moom la ñuy rek wax Mike Tyson Mike Tyson nag nekkoon ak ëpp boxeur bu uh, mag xarañoon lool ca boobu lépp wàll ñu ràññee ko ci àddina wërngal këpp moom nag ba jamono ji ci atum 2021 ku ko gisaat nag xam ni amaana melokaanam jotu la sax soppeeku noonu lu ëpp 50 ans mu am ko teewul. dafa rek daal di am forme physique bu doy waar amaana sax ca jamono ba mu doon box ba léegi maanaam ceene lépp dagg moom Mike Tyson nag la nga xamante ni xamle na ko wala sax secret bi waral li nu mel mu ngi ko joxe ci weeru ko novembre bi lii ci rek akub dalal bu ñu ko dalaloon moom la mu xamle moo di ni amaana li tax jàpp forme ba léegi nii bokk na ci akub venin crapaud maanaam dangar jóge ci mbott la ñu ko invité woon nag jëm na ci wàllum pàcc boo xamante ni dafay rek wuute lool ak bu moderne bi ñu nemmeeku moo Mike Tyson nag di ku nga xamante ni boobu lépp façon gu ko pàcc ak toppatoog yaramam da ko wuute lool tax ba mu rek daal di eh, sulli ay mboota ki secret jëm ci loolee nga xamante ni moom moo di dangar bi bàyyeekoo ci mbott amaana nag du eh, mbott bu nekk dafa rek daal di am xeetu mbott ndax nag ci wolof mbott dong la ñuy wax waaye ci li nga xamante ni moom moo di kàlamay tubaab dinañ faral di dégg grenouille wala crapaud bileb yoon nag ci li nga xamante ni moom moo di crapaud ci la boobu lépp dangar di jugee mu nga xamante ni moom Mike Tyson da ko doon rek jëfandikoo amaana moo waral ba mu melokaanam jamono jii